Ahmed Seck day waa directeur de cabinet yu kon kii di Moustapha Niass nee na parti politique boo xam ne kon nañ laa yëkkati samp la day la la tax a jóg mooy gañe réew mi nekk président rek nee na AFP tamit day bu Moustapha Niass ci loolee la ne ba tax na ma ne la AFP ci boppam kon dana am candidat 2024 laa la wax laa ilaha waa léegi kay laaj bi mooy est-ce que Macky Sall mi la la AFP amoon kon ci ay ministre day ca Macky bu njëkk ba ndax dana ko am na ci Macky de bi di waaj a a ci juróomi at yi di ñëw yépp di leen dooleel di leen jokkoon ay ministre looloo jaralaat yéene kaa gi ne parti socialiste tamit day Ousmane Tanor Dieng dana jug taxaw laa la wax waaw waaw moo tax gis nga Benno Bokk Yaakaar bi lée boo sagane ca tas la jëm ba di tasar tas ki kay daanaka programme nañ ko laa la wax Le Quotidien yéene kaa ne tas assemblée nationale googee waaw ma ne la waa Benno Bokk Yaakaar day jubawuñ ca de déedéet parce que Abdoulaye Wilane bu a ah nee la daa méngoowu la Macky méngoowu la Benno Bokk Yaakaar andi Macky andi Benno Bokk Yaakaar Seck bu AFP day waaw nee na fii daa amul danger Benno Bokk ñu yor koon am laa la wax kon lu ñuy tase assemblée nationale ana lan moo fi ñor bañ koy mac maire Kaffrine kon di Abdoulaye Wilane day ci yéene kaay ma dama jàngi waaw nee na parti ana ñi ñu doon di xas ñooñoo ñëw day fekk suñu ci Macky Sall mi laa la wax journaliste bi ko xanaa wax joojee Aïssata Tall Sall ko moom Abdoulaye ne ko tudduma tur de dama ne am na ñoo ñaara koy xaar laa wax ne lee ba mooy la ñuy def ba dugal leen kon ci biir alternance générationnelle loolay dëgg dama ne loolee farata la te am sàkku def la tamit gént bi nga xam ne kon xale yi ñu ngi ko doon gént yëpp yaakaar nga daa tas di Macky moom yéen kaa ne diggante président Macky Sall ak jeunesse bi nga xam ne nag maanaam daa yàqu day Ousmane Sonko moo ca profito dëgg la ma ne la Ousmane Sonko day 33000 voix la amoon ci élection député yi kon ci 2017 waaye ci élection présidentielle yi day waaw ma ne Sonko la moo am ci ay carte ëpp na genn wàllu million plus de 600000 voix la la wax la ilaha illallah ci élection bu rëy bi yéene kaa gi ne parce day waaw dañ doon wut ab leader woo xam ni anti système bi lay ne Ousmane Sonko kay leen na ko xawoon a ba mu defee jege ji bàyyi système bi la di Abdoulaye ñaareelu défi bi nga xam ne na Macky Sall kon war na caa jublu day mooy benn nit ñaari bureau wala ñetti bureau cumul de fonction yi waaw ñaata ministre kon ñoom ñoo nekk nekk tamit ay maire ci seeni gox waaw ma ne te kon dawuñu nag TCA yi nga xam ne kon dañu koo jël di ko séddee kon responsable politique yi te askan wi ñu gën a bëri nekk ay ndaw ay jeunes compétent tamit teg ca le soleil kaay ne ñi nga xam ne dañuy wax naan murid yi day dañoo Macky Sall Mor Ngom nee gox ak juróom-ñett yoo xam ni sëñ Touba moo leen sañ ak yeneen xam ni kon ay gàncaan leen ci ndigalam Macky Sall fa gagné Macky Sall gagné Njaaréem gagné Bambey gagné lu tolloo fukki commune ak ñeent rural Mor Ngom ci tribune yéene kaay ne xam nga Idrissa Seck bu bëggee wax ne moo gagné ca Touba googu murit la walaay Idrissa Seck juum na lool parce murit yi kat Macky Sall la ñu murit yëpp ñu ngi ci ginnaaw te xalif généralu murit président Macky Sall day ma nga jëm ca Abu Dhabi bu fa jógee ma nga jëm ca Maroc eh, ngir waajali gouvernement bu bees yi di dikk exclusive yéene kaa ne gouvernement bu bees boobee waaw kan mooy nekk premier ministre ba en tout cas day génnee nañ ko ca sa année Amadou Ba kay waaw booy boo nag ne très attention laa la wax uh-huh. waaw waaw parce que am na ci ay responsable yu am doole ci APR ay punkal ah yoo xam ni koy waajal na dal ci kawam mardi daal parce que ay dossier moom tamit dossier wu Prodac Prodac a yeneen ak yeneen sax ndax jege bi nga xam ne kon jege na ko première dame waaye tamit boppam lay liggéeyal ngir 2024 tey reyante bi APR léegi mu tàmbali di est-ce que Macky Sall deux mandats lay def Ismaïla Madior Fall waaw ministre de la justice ci enquête yéene kaay ne man ma xalaat mooy constitution bi li mu wax leer na te normalement bii mooy deuxième mandat bi te mooy dernier mandat bi Macky pare na ci docteur Atta ci am na kon horreur la horreur la 24 heures yéene kaa ne woote bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko jalo day waaw Macky xam nga lan la bëgg ku daganal ndamam lii moo am légitimité maître Madické Niang ci Les Échos yéene kaay waaw nee na PDS si faaran bàyyi naa ko illaa yow mi diin pare naa PDS si selo siñor ci yéene kaay gi waaw nee na man day maa day xeex Macky ba noppi gañe ko tamit ca Touba doomu Moustapha Cissé Lo ba yemu parce que Cissé Lo siñor nee na lu tolloo juróom ñaari millions laa génnee ci fukki fan xeexal ko Macky Sall jàppale Idrissa Seck ba mu gañe ca Touba te gisoon nañ fi ay ministre rek ay directeur généraux ay conseil ay élu génnee ay téeméeri téeméeri million ci Touba gi lée teewul dama leen a door ba wëndeelu laa la wax bàyyi Cissé Lo di Moustapha Cissé ci tribune yéene waaw nee na ak Macky Sall ci élection locale yi de mar di waaye élection locale yi ku nekkay dem Maodo Sarr ci évidence yéene waaw nee gis nga APR ay borom riir fa ne rek bëri ko defal dara rëndëng rëndëng rek en tout cas ci nekk daal yaa nga naan yaa tax Macky gagné waaye kaw la ci la de dorog fii ci benn camion sénégalais THS la waaw doy na waar li doy waar kay wàllu wér-gu-yaram gala Amidou Diallo ci insuffisance rénale ki la ci 24 heures yéene kaay nee na day ñaari malade insuffisance présidence rénal ñooy dee ci bis bu nekk ñaari nit daanaka million huit cent mille gaa te genn wàll gi yëpp ñu ngi liste d'attente di xaar allahu akbar fii fukki fan ak juróom dañuy dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax alaaji cooli cooli daala ngi ni lee rek nañu ñi feebar ñi amul luñ lekk ñu jox leen deuxième mandat bi neex boo paree la alaaji tëjal